maanaam li nga ñu wax nga wax ñu lan mooy sa taxawaay ak sa xalaat ak sa position ci respecter constitution bi maanaam troisième mandat bi li nga ci wax nag xëy na da nga koo waxee voilà te bàyyi woo ci xel dégg naa ne da nga ne gëmoo élection euh, ne nga c'est une affaire personnelle déedéet du affaire personnelle du lu président de la république bëggal boppam lu constitution bi nga xam ne moo ñu tënk moo ne clairement nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs monsieur le premier ministre est-ce que est-ce que dafa am solo def naa sa membre gouvernement yi toog bëgg nañ une position claire bu jóge ci yow même sa groupe parlementaire bii bëgg nañ position bu claire est-ce que da ngay jàpp ne président de la république dafa war a defaat troisième mandat ou pas loolu mooy la question question boobu bëgg nañ nga tontu ko sénégalais yi bëgg nañ koo dégg sa groupe parlementaire bëgg nañ koo dégg man mii it bëgg naa ko dégg parce que lii dafa war a leer bu fekkee ne da nga jàpp ne da nga war a jàppale un troisième mandat mais nga assumé ko monsieur le premier ministre nga wax ko ñëpp dégg ko man jàpp naa ne loolu warula am parce que man yow président du groupe ak ñi fi toog ñëpp dañu àndoon wax sénégalais yi ne constitution deux mille seize dañu ko verrouillé ñun ñëpp wax nañu ko bu fekkee ne da nga changer position mais kooku sa droit la mais wax ko ñu dégg ko sa ministre yi dégg ko sa groupe parlementaire dégg ko sénégalais yi dégg ko mais wër-wërloo boobu wër-wërloo boobu moom nga war a clarifier boo ko clarifier ba noppi ñu seet ni ñuy def nag ak lii nga xam ne moom mooy ordre jour bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. merci cher collègue.